rahmatullahi wa barakatuhu. Now you can listen to our Fakir Muhammad Saho Tijani along with the greatest scholars of our time on Tijani International Radio every day at www.icfaonline.com, at www.muhammadsaho.com, by dialing your phone at 401 347 07 841. Or by downloading the Tijani Radio application onto your smartphone or computer. For your questions about Islam, you may call 347 596 2036 or email us at icfaonline at gmail.com. Spread the word by sharing this message with your friends. Wassalam. Wassalam. أو كم ما شاء الله ما شاء الله فليكن في كل قلب من هواه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 tati lana bi wafari tey nag ah Seydina al-Busiri mi ñëw ak ci bunt bi nga xam ne moo waral coow li maanaa su ñuy am eh, yittewoo bu ñuy yittewoo waxtaani Burda ci yile jamono mooy fàttaliku eh, gi ñuy fàttaliku ni ci la yonent bi juddu woon eh, mooy li waral loolu tey nag buntu juddu gi la ilimaan ji indil xam nga Busiri ku rafet nu muy waxee la rawatina buy waxee e, mbiru ki nga xam ne taar yéppam moom la waaw xam nga yonent e, yàlla séddalewul li mu yore ak yonent bi kenn e, lépp yonent bi la ko jox alayhi salaatu wassalaam fala wa rabbika ko jàng la laa yuminuuna xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum waaw eh, bu dee ngërmande bu dee cofeel bu dee mbaax bu dee lumoo lumu rek yonentu moo eh, gàddu lépp waa yàlla yonentu rekk la sopp waa ku muy soppati ci cofeelu yonent bi lay set waaw wante yonent ne yàlla mooy yàlla mooy joxe wante may séddale macha allah eh, ñuy ñëw ak yéen nag tey ci bunt boobule suñu mbokk yi nga xam ne eh, ñu ngi connecté wu ci Facebook bi macha allah maa ngi seen sama jarbaat eh, jib jibeel Seck Serigne Jibeel ak soxna Adja Ndiaye ak axun min al wa cheikh min ashuyuux abul fadl seydi abul fadl ak soxna sakinatu xaydara moom waa kër yonantu la sallallahu alayhi wa ak ñi ma njëkk a tudd ak eh, yëf yi mi ngi deme noo xam ne mënuma sax tabaarakallaahu xam ñépp ah, kii de turam turam xaw ma ci japonais lañ ko bind xaw ma xanaa ma woo Abdallah wala maam Ali boog ñu wax ma li mu bind lan la ndax man vocabulaire karaté ya ma xamoon ci japonais ca laa yem soxna eh, Tima Diaw macha allah ci suñu bind bi weesu Seydina Boussiri fi muy dalee fi muy jeexalee wax ji dafa am munasaba ak fi muy dalee tey ndax dafa ni ka annama lu'lu'ul maknun fi sadafin min maadinay mantiqin minhu wa mubtasimi wa mubtasami sallallahu alayhi wa sallam maanaa yonentu sallallahu alayhi wa sallam maanaa am ni nga xame ne e, lu lu umak noonu moo gën a rafet ci durru yi ci wurus yi ba ñu nëbb ko te kenn mënu ca teg bët ndax sadaf ba ko ëmb mu ne yonent bi biiram euh, taxar ba noonu lañ ko nëbbee ba liñ ci jot a xam sax boo ko doon comparé ak liñ ci xamul dafay mel ni xamuñ ci dara mu ne waaye jëmm ji it noonu laa tiba yaadilu turban damma azumahu tuuba li muntashiqin minhu wa multasimi alayhi salaatu wassalaam maanaam turbu bi turbatu rasulillahi wala tinatuhu sallallahu alayhi wasallam mooy jëmm jëmmu jiit ni mu teeyee la kenn mënul mesurer moo tax yenn ca saxaaba yi suñ ko joxaan loxo duñ bëgg a joxati loxo kenn ndax xet ga ci neexaay dafa des ak yow Umu euh, Sulaym ne ko euh, sa odeur u ñàkk Eh, dañ koy neexale suñu parfum yi ndax sa ñaq moo gën a eh, xeeñ neex parfum eh, bi ñu ko dencee it ndey Faatimatu ba mu ko xeeñcoo mu ne soxlaatuma xaaliya xaaliya soxlaatuma ko ndax ku fóon fi ñu denc yonant soxlaatuloo parfum waaye yi tamit Eh, musiba wi ma dal ci ñàkk gi ma ko ñàkk eh, xawma ma nan laa ko àttane nde buñ ko sotti woon guddi yi li ñuy lëndëm lëndëm bëccëg yi li ñuy leer leer dañ mujj di di guddi teeyaayu unsur boobu nag moom lañuy wax ni judd bi moo ko moo ko wane ni mu juddoo rek wan nañu moom mooy kan ci tey ci unsur abana mawliduhu an tibi unsurihi yaa tiba mubtadain minhu wa muxtatami sallallahu alayhi wa sallam yonentu sallallahu alayhi wa sallam mi ngi juddu ci waxtu wi rëfër benn manzil xamari la di fenk nee nañu sax ci la yonent yi di judd waaw mu tolloog jamono ji jant bi di nekk ci burjul hamli muy fukki fan ak ñaar ci weeru gàmm wuñ nekk ci li gën a siiw gën a wér ñaar fukki fan ci weeru avril moom la ñu tuddee niisan juróom fukki fan gannaaw xew-xew abraha ba mu jógee yaman ne dafa toj ci kaaba gi te yàlla nettaluñu la ca xew alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil ah kii de soxna euh, euh, Serigne Lamine Fall à Paris ma sha allah alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil alam yajal kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayra nababil tarmihim bi xijaratin min sijjil fa jaalahum ka asfin makul waaw yàlla alak leen ñoom ñëpp parce que moom moom néegam waaye borom téere bi dina ko tudd yooyu yëpp dafa bokkoon ci irhasat irhasaat dafa bokk ci mubashiraat yi wane ne am na lu rëy lu war a ñëw jamono jooju ñaa euh, fa euh, juróom fukki fan gannaaw xew-xew boobu ñu ngi nuyu euh, Serigne Ogo Ogo Sow macha allah Mister Africa juróom fukki fan gannaaw xew-xew boobu tombeek bésu altine te xam nga moom moo yeeyoo altine ndax yàllaay la wóolu waaw bi yàlla bindee nag ka mu ak la mu njëkk a bind gannaaw ah, nekkam moom yàlla te nekkam laysa li awaliyatihi ibtidaawun ale subhanahu mooy leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qul in kaana lirrahmani waladun fa ana awwalul aabidin waaw laaye jooju wan nañu ne yàlla yonent la njëkk la Eh, mi ngi tombeek nag eh, jamono moomeelu eh, Kisra Anusharwan Kisra Anusharwan boobu juróom-ñetti at après ci lay gaañu ci at mi maamam di gaañu ci at mi xaatimu ta'i di faatu waaye jamono ji nga xam ne Kisra Anusharwan moom na Faris ñeent fukki at ak ñaar ci la yonent bi judd alayhi salaatu wassalaam euh, wax nañ ne bi mu moomee Faris ba am vingt quatre ans ci la bàyyi yonent Sayyiduna Abdullahi judd biñ ca tegee fukki at ak euh, juróom-ñett ndax Sayyiduna Abdullahi fukki at ak juróom-ñett ci la am soxna sayidatuna amina ah, waaw waaw sayiduna abdullah mook sayidatuna amina yépp eh, ay waa waa quraysh lañu waa quraysh lañu muhammad ibn abdullah ibn shibat ibn hashim ibn abdi maneef ibn qusay ibn kilaab ibn murra ibn luway ibn ghalib ibn weheb ibn malik ibn nadr ibn kinaana ibn xuzayma ibn mudrika ibn ilyas ibn mudar ibn nizar ibn maad ibn adnan yaayam sayyidatuna amina bintu wahab ibni abdi manaaf ibni zuhra ibni kilaab ibni murra ibni kaab ibni luway ibni xaalib ibni wahab ibni malik ibni nadr ibni kinaana ibni xuzeymata ibni mudrika ibni ilias ibni mubar ibni nazar ibni maad ibni adnan foo ko xool rek fekk ne waa quraysh la waaw ndax Quraysh yàlla leen tànn ci eh, kinaanatu ni mu tànnee kinaanatu ci eh, banu ha ci ci ci banu Ismaayil ni mu tànnee Ismaayil ci abnaawu Ibrahim mu tànn nag ci biir kinaanatu banu Hashim tànn yonentu sallallahu alayhi wa ci biir banu Hashim dañ ci ñëw waaye jamono jooju ci la judd bi Kisra Anushirwan amee ci nguuram ñeent fukki ak ak ñaar mi ngi tombeek Alexandre euh, deuxième Alexandre Alexandre bokkul ak Alex bii bokkul ak le grand Alexandre le grand moom la ñuy wax ni mooy Zulqarni waaye Alexandre bi moo doon taalibe Aristote Aristote c'est un philosophe grec euh, gannaaw taarixu euh, Alexandre bii nag bi muy am huit cent quatre vingt jamono bi Seydina Rasulullahi di judd moom ñetti téeméeri at la jiitoo Seydina Isa moom Alexandre bi le wax nañ ne moo faat eh, daara bi nga xam ne moom moomoon eh, Faris jël nguuram Euh, wax nañ nag ay bërëb yi ñu ne moom la juddoo ñii ne Usfaan la juddoo Usfaan euh, boo koy xool diggante mook Màkka quatre kilomètres la euh, mook Madina trois cent quatre trois cent cinquante-huit kilomètres ñii ne Daaru ibni Yusufa ibni Yusuf Muhammad ibni Yusuf frère Xajaaj ibni Yusuf la al-Thaqafi lu tax ñuy tuddee kër gi këram te fekkee fekkeewul juddu yonantu sallallahu alayhi wa ñu ne waaw yonentu kër googu moo ko mayoon aqil son cousin aqil ibn abi talib ñu ne aqil jaay ko euh, gannaaw jamono ji nga xamee ne xurayshien euh, gi jaay këri muhajirin ñu ne déedéet moo ko yore ba dee ay doomam donn ko ci jamono Muhammad ibn Yusuf mu jënd ko ci ñoom ci cent mille dinar moo tax ñuy tuddee kër ga daaru ibn Yusuf ñu ne déedéet place bu ñu wax rëddum te xare ba fa amoon am ko rëdd rëdduma ba ñuy jumaa ñu ne fa la juddoo ñu ne déedéet chaab Abu Talib wala chaab bani bani Hashim eh, fa la juddoo eh, lu mën a xew juddu la gu nga xam ne jamono musul gis eh, juddu gu mel ni moom sallallahu alayhi wa sallam wax nga dégg kii ko kamante alayhi salaatu wa salaam loolu nag la. borom téere bi di jàngale mu ne abaana biral na mawliduhu xanam wim juddoo mawliduhu jamono jim juddoo mawliduhu barab bim juddoo biral nañ an tibi yi ci teewu cosaanam ana luy cosaanam mooy teewu ruuxam ndax ruuxam mooy cosaanam jëmmam di banqaasam moom ni ma leen ko waxee mooy bàyyu eh, mbindeef yépp waaw na ko suñu góor ga waxee laqad kaana laqad kaana abdallahi laa abda qablahu wa kullu abidin taabiuna li xalqihi cheikh alxaaji omar ibn ali wa qad kaana maxluqan li rabbin muwaxadin wa kullu barayaahu li yaasina abdihi xabibun safiyun wa najiyun mukallamun wa muslim lil xaq bi jibrila unsihi sallallahu alayhi wa sallam cosaanam teey na boo ko delloo ci ruuxam maanaam ñëwinam rek moo wane ne ki ñëw ku tey cosaan la waaw ki ñëw ki tey cosaan la ndax koo xam ne bi ngay ñëw sa yaay nee na gis na leer bu nga xam ne mi ngi koy wan taaxi euh, Busra mi ngi koy wan taaxi taaxi Sham te mi ngi ci Makka bi ngay ñëw guddi googu kaaba gi mënatul mënatul dal bi ngay ñëw aalamul arwaaxi wa aalamul ajsaami wa aalamul jamaadaati wa dawaab wal bahaim kenn dalatul bi ngay ñëw lu nekk ci yàlla bind mi ngi wane ni ñëw nga bi muy ñëw euh, jëf na bi nga xam ne moom lañ daan dëppal ku judd ci Quraysh biñ ko ko dëppalee dafa toj ñu xam ne ñëw na pour rey aada yi xaqiqaa ko tax a ñëw euh, waxuma la judd gi waaye ëmb bi rek ca loolu tàmbalee te nag weer wu nekk ab yonantu bu ñëw waa xëybu di ko seet si di ndokkeel eh, sayyidatuna eh, aminatu moom la borom téere bi ne abaana biral na mawlidu juddoom gu rëy gi am tibi unsurihi ci teeyu cosaanam teeyu cosaanam it mooy cosaan goo xam ne ibrahim la cosaan googa tey na yaa tiba mubtada'in kawteef woonaa teeyu tàmbali minhu ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa muxtatami ak mottali minhu ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tàmbali ga yonantu maa hootee gim teey waaye mu jëm maa hootee gi maa yéemtee koo xam ne sa eh, eh, ah, kooku sama jigéen la soxna googu maa koy ziar macha allah surtout yoon ci yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam tàmbali goo xam ne Seydina Ibrahim la tàmbali googoo tey waaye mujj goo xam ne yonent yàlla Muhammad la mujj googoo tey wala tàmbali goo xam ne Hachim la Hachim moom la ñuy dàkkantele banu Hachim amr la tudd wante bi bekkoor amee Quraysh eh, dafa organiser waa Quraysh di defar. Euh, lekk di ko jox ñi amul li ñu lekk te boobu arab rëy nañu ñaan ñu tuddee ko hashima amrul ala hashama tharida li qawmihi wa ahlu makkata musnituuna ijaaf gannaaw hashim moomu nga xam ne moo organiser rihlatu chitaa wa sayf ba yàlla di ko tudd ci alquran soxna Fama Kébé ñu ngi koy ziar ak soxna Daba Mbuub macha allah Dada Mbuub macha wa taala li ilaafi quraysh ilaafihim rixlata alchitaai walsayf falyacbudu rabba hada albeyt alladi atamahum min juuin wa amanahum min xawf ki ko ki ko indi mooy Hachim maamu yonentu sallallahu alayhi wa sallam kon nag cosaanam boobu tey na waaye li li tëj cosaan loolu ki yonentu bi tey na wala cosaanam ci aadama sax ba ci moom ndax Seydina Ali dana wax ne yonentu wax na ne laysa fiina sibaaxun kulluna nikaaxun min aadama ilayna diggante aadama ba ci ñun mu ne sifaax amu ci amul kenn ci maamam yi koo xam ne juddu nga ci lu dul sëyub shariatu waaw juddu nga ci lu dul sëyub shariatu moo tax yonent bi baayam yeeg maamam yeeg maamaatam yépp jullit lañu waaw ñépp a gëm yàlla ñépp ci sayu shariatu euh, lañu la ñu judd yàlla tànn leen di ko tànnal ay maam inna allaha stafa kinaanata min waladi ismail wastafa qurayshan min kinaanata wastafa min qurayshin bani hashim wastafa nii min bani hashim te lu booga réew sallallahu alayhi wa sallam abana mawliduhu an tibi unsurihi yaa tiba mubtadain minhu wa muxtatami mu ñëw ak ñun nag ci kéemtaan yi nga xam ne ñoo xew ci guddi googu nee na yow mun bëccëg la tuddee na ko bëccëg léegi-léegi ñu tuddee ko guddi lu tax parce que yonentu sallallahu alayhi dafa màndu su juddu woon ci bëccëg rek eh, guddi tuuti waaye su juddu woon ci guddi yi bëccëg tuuti mu juddu ci ñaar yëpp ah, mu juddu ci ñaar yëpp soxna maam Sofi ci ñaar yëpp la judd ah, jamono bi nga xamee ne njëla ngi jot nga xam ne ki feebaroon lu métti métti dina am relief dina am relief dina dina mën a nelaw jamono jooju ci la yonent bi jut nga xam ne du ci guddi gi du ci bëccëg ci diggante bi la sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mu ne yow mun bëccëg la boo xam ne tafarrasa xamee na ci furosatu fii ca bés booba xamee na ci alfursu waa faris ne annahumu bil ishbaai naka ñoom qad unziru xamaleef nañu leen bi xuluulil busi ci wàccuk wañsu wa niqami ak mbugal mooy ki leen war a folli dikk na jaa alxaq wa zahaqa albaatilu inna albaatila kaana zahuqa mu mel ni danga ne ko nan lañ ko xamee mu ne wa baata dafa fanaan yuwaanu kisra paleb kisra ba mooy shurufaat ya wa huwa tamamun sadiun aji toj la mu waaw ah, taqale ko tasar que chamli ashaabi kisra ni ki mbooleem kisra yi xayra multa xayra mbir moom nekku nekkuñu di di di mbir moom nekkul di aji booloo maanaam eh, faris ki rek la xam ni seen mbir jeex na waaye bëccëg boobu tamit bi nga xamee ni eh, buur bi gént na eh, naaru góor yi arab yi gént ga jaaxal ko ak gëlëm yi gént ga jaaxal ko mu xëy wax ko ñi nga xam ne ñoo ko jege entourage balaa moo pare la xew saawata ñëw balaa moo pare la xew feneen ñëw ci ndox ma ca safara mu ne waa lu xew ñu ne ko moo ne de palais bi nga xam ne eh, wax nañ ne yaatuwaay bi rek ay mètre la maanaam ruxaam yi guddaay bi nag kenn mosul imaginer ne kenn mën na ko toj ndax boo dóoree semmiñ it du toj guddi googu mu toj fukki toj toj ak ñeent fukki balcon ñeent daanu ci mu ne nag ah lii fokk ñu wut ci pexe fokk ñu wut ci pexe ñu yónnee ñëpp ñëw ñoom ñëpp bu kii waxee lii kële wax la leen moom lay wax ne ka chamli ashaabi kisra xeyra multe mi ñoom ci seen bopp mënuñu eh, mënuñu déggoo mbir mi nangam la ñu mujj nag eh, eh, yónnee yónnee ci arab ya parce que ñoom dem nañ daal ba gis ne mbir mi daal lëf la lu rëy lu xew ci arab bi waaye nag mënuñu ko firi te déggoowuñu ci mu woolu euh, abdul masih bi mu ñëwee mun ne ko xaw ma ko de waaye am naa sama najaay bu nga xam ne ca Sham ñu koy wax sa tixu moom bu ma fa demee dina ko xam kooku sëriñ Modou Sarr ak sëriñ du Baar sëriñ Modou Baar bu baax la xale bu baax la ak waa Pikine yi ma sha allah barakallahu lakum yal na leen yàlla defal jàmm yéen ñëpp ci barke e, guddi yu leer yële sama guddi turandoo yi sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan abdul masih dem seeti e, satixu satixu mbindeef mu yéeme la woon nee nañu ñu na ñetti téeméeri at ñi ne juróom-ñaar téeméeri benn e, benn jëmmu la woon rek espèce u jëmm jëmm boo xam ne amul cër waaw mënta toog fekk merul du mën a toog waaw bu ko defee rek bu meree ci lay funki ba toog ne nañ ñu ne kanam gi ci dënn bi la nekkoon amul bopp amul doq waaw Abdul Masih dem fa fekk ko ba ngaa sukkuraat ñu ne mu wax ay bayt ndax dafa wax ak moom waxut mu wax ay bayt ñu ne satix daf ko dafa wax ak moom balaa moo tudd dara waaw ah, ne ko abdul masix ala jamalin mashix ila satix wa qad awfa ala darix baasaka maliku saasaan lirtijaasi liwaan wa xumuudi niiraan wa ruya almubidaan raa iblan sicaaban taquudu xaylan iraaban waaw qad qataat dijlatan wa intashara fi bilaadiha yaa abdal masiixi ida kahurati tilaawa wa dahara saaxibu lhiraawa wa gaadat buxayratu saawa wa xamadat naaru faris fa laysat baabil lilfursi maqaaman wala shaam li satixin shaaman yamliku minhu muluukun wa malikaatun ala adadi shuruhaat wa kullu ma huwa aatin aat thumma qadaa eh, satixun waaw wa maat min saatihi dalik min saatihi tilk mu ni ko abdul masih yaa ngi ñëw ak say gëlëm jóge ca buuru Faris li ko tiital nag mooy iwaan bi yëngatu muy pale bi li ko tiital mooy seen safara si ñu daan jaamu junni at Mustapha te fay na tey li ko tiital mooy mubiraan ki nga xam ne mooy xaadir xudaati ci ci ci biir paleem gént gim gént waaw gëlëm yooyule wom dégg nga màng fasi arab yi ñuy dagg diglata tasaaroo ci seen dëkk yi li ko tiital yaa abdul masih mooy gis nga boroom njàng ma war a ñëw mu ne ko bu borom njàng mi ñëwee te boroom yet wi feeñ bu xayratu saawata ñiis te ñiis na waaw mooy naan boroom njàng mi judd na borom yet wi juddu na ndax bu xayratu saawata ñiis na dégg naaru faris fay na nañ xam ne baabil faris moomatu ko waaye satixu moomatul sham mu ne ko nag danañ danañ danañ moom euh, faris waaye dootul yàgg mooy fukki buur ak ñeent leen dese waaye lépp luy ñëw na xamal ne agsi na ca la fàttu abdul masih daal di dellu am ci kisra wax ko li nga xam ne moom la ko euh, satixu wax mu ne ko ah fukki buur ak ñeent ko lu ne xaj na ci lu ne xaj na ci waaye ñu ne ah ci ñeenti at rek fukk ci ñoom dee nañu ña des dund ba ci xilaafatu Usmaan ñu ne boo xoolee nag ba ñu commencé moom Faris ba seen nguur ni muy jeexee ñetti junney at la ak téeméeri at ak juróom-benn fukk ak ñeent saan waaye ñëwu yonantu ay alayhi wasallam moo xamle jeexaayu nguuru jaamu lu dul yàlla subhanahu wa moom la borom téere bi di junji walla di leeral ci eh, eh, expression am yu yu yu fasax yi le waaw wa baata yiwaanu kisra wa huwa munsadirun ka chamli asxaabi kisra gayra multaimin wannaaru xaamidatu l anfaasi min asafin alayhi wannahru saahil ayni min sadami nee na wannaaru safara faris ji nga xam ne moom lañ daa jaamu xaamidatul anfaasi aji gëmmu nooy la ay noom gëmmu nañu mooy fay na rek lu ko ko yóbboo min asafin njàqare alayhi ci li xew ci bés boobule wa nahru dex ga saaxil ayni lu ko ko yóbboo mina min sadamin njàqare njàqare réccu min shiddati xusnin minhum ala insidaai liwaani aw ala shamlihim xaytu tashattata wannahru alladi fihi qiyaamuhum saahil ayni tilka alleyla ay saakinun an iljarayaani min ajli sadamin ay xusnin minhum maanaam njàqare gañ jàq moom lay misaalee E, safara si maanaam safara si fay mu mel ni lañ waroon a jàq moo ko jàq moom ba fay walla géej gi ndox mi ñiis dex gi ngiis mu mel ni moo ko jàq ba ñiis te xam ngeen ne yooyu bu fekkee ne eh, mën nañ wax ne amuñu conscience dañuy wax ne amuñu conscience bay bay bay jàq ñu ngi ziar Serigne Moussa Mbaye ak soxna Batour ak soxna Suzanne léegi nee léegi saawu san la waaw ci saawu san jo eh, Seck waaw ak eh, aw sis Layla Abdourahim am si wa ila na wal wi talking about but alhamdulillah ak eh, Habibi Diop macha allah macha allah ah, ngeen baal ma ne ñi ma dul tudd dama leen dul gis léeg damay sigg rek yem ci vidéo bi nga defee ñi ma seen ci écran bi rek ma tudd leen du noonu waaw ah, kii nag turam dafa xaw a jafe Shafi Shafi ay dara macha ah ay dara karaara ko suñu mbokk la macha allah barakallahu lakum nee na wannaaru xaamidatul anfaasi min asafin alayhi wannahru saahil ayni min sadami wa saa saawata an gaadat buxayratuha wa rudda waariduha bilxaydi xiina wami wa naqadina saawata waa saawata an ne li am mooy xaad dafa ngiis bu xaylatuha ngéej sa tasxiiral na ko ngir màggal géej ga ndax ngéej su as ngéej la bu xayra la waaye bu xayra la bu mag ndax tollu woon na ci juróom benni mille miles ci yaatu ak ci guddaay mi ngi nekkoon ci dëkk bu ñuy wax saawata saawata dëkk la bu di nekk ci diggante hamadan ak rëy madina la woon min mudanihim waa saawata jàq nañ lu tax mooy seen bu xayra gi nga xam ne ñoom ñépp ci lañ daa naan ci la sangu ci lañuy faj seen aajo yépp ñiis na warud te delloo waariduhaa ajurot sem ki fa ñëwoon di wut si ndox ñu delloo ko bil xayri ak mer mu delloo ko mer ngay takk ak mer xina mi ndax ba mu maree bëgg naan ñëw fekk géej ga ñu ñëw fekk ndox ma jeex booy misaal daal naaru farisa nam fayee ba dara desatu fa ak seeni ndox nam ñiisee ba dara desatu fa mu ne ka ann bilmaai ma binnaari ka ann binnaari ma bilmaai min balalin xusnan wa bilmaai ma binnaari min daramin ka ann binnaari dafa mel ni dafa mujj nekk ci safara maa la nga xam ne bilmaai mooy nekk ci ndox min balalin ci tooy tooy tooy bi ngay gis ci ndox booy xool fi safara si newoon dafa mel ni moom moo tooy tooy fa nekk ngir ne safara si dafa fay ba jeex takk takk mel ni daal fii du safaraa fi tàkkoon sax ndoxu fi taawoon xos nan ngir yi dafa mel ni dafa nekk ci ndox man maa lay nekk binnaari ci safara min daramin ci tàkk-tàkk ndox may dafa ngiis a ngiis ba mel ni fi mu ne woon duwul ne ndoxu fi ne woon waaye safaraa fa nekk macha allah ñu ngi ziyaar ñun tamit soxna si macha allah mu mel ne danga ne dañ xew mu ne déedéet wal jinnu tahtifu wal anwaaru saatiatun wal xaqu yadharu min maanan wa min kalimi wal jinnu jinne guddi gi bi juddoo sallallahu alayhi tahtifu ña ngay xoote xante baat boobu haatif giñ tuddee téléphone euh, tey nekk waaw tey gis nga arab arabiyatu ba kàddu maanaam làkk bu riche moo tax képp kuy jullit euh, war nga fexe ba jéem ko gore ñu ziyaar euh, Seydi Alfa Karara ak Seydi Diop Birane ak Tijani yi macha allah ziyaar waa Kër Cheikh Tijani yëpp ndax ñoo ay kër yonent bi yëpp waaw ndax ñoo aaye waaw arabiyatu dafa riche eh, gis nga booy seet anglais paasewul paasewul juróomi téeméeri junney baat half a million words waaye arabiyatu li mu am ci baat dem na ci douze millions de mots moo tax benn luxa melul ni moom moo tax mag ñi gëm ni euh, lugal arabiya euh, c'est une langue divine waaw c'est une langue divine ndax làkk bu yàlla dencal alquran ah ñu ne moom la aadama njëkk a wax moom la bashariyatu njëkk a xam moo tax waa aljanna arabiyatu la ñoo làkk moo tax teel na jar na teel a goreel nag jar na teela a teel a teel a goreel dégg benn bi sëriñ Cheikh Eh, tijaan si yal na ko yàlla yërëm te gërëm ko mu ne eh, agrégé ci làkk bu nekk ak ci lu nekk moo xam làkk française la walla allemande yonent bi di sa eh, yonent nga yegg yowmal qiyaamati mu làkk la lugal arabie te doo ko mën tontu nee lool ci la gàcce am nee na ci la gàcce am yegg àllaaxira yonentu làkk la lugal arabiya te doo ko mën ton xam nga ko yonent bi di làkkanteeg arabiyatu xëy na texe nga sax waaye xëy na texe gàcc lay doon la Cheikh El Hadj Mali waxoon ajanaay gàcc nañu ko yàlla fa yow moom it barke yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax baat bu ñëwati wala mbir mu ñëwati ci àdduna rek fekk na lugal arabiya amul na ko tur waaw arabu arabiyatu yonent bi laa wax nag waaw arabiyatu rasulillahi la waxuma luxal arabiya bi nga xam ne tey moom ngaa dégg ci mbedd bi boobu moom yet rek ngay wut bëgg caw borom parce que li ñuy làkk du kenn xamul lan la waaw du luxal arabiya mukk nee na wal jinnu jinne yi tëxtëfu ña ngay xoote wante wala anwaaru leer yi saatiatun saatiatun aji wala woy jolli lañu waaw jinne yaa ngi woote ku nekk di yëgle ne yonent bi day judd na sallallahu alayhi wa sax wa wa sallam waaw eh, xam nga jinne yi xam nañu ko yonent bi malaaka yi xam nañu ko yonent bi daaba yi xam nañu ko yonent bi lu yàlla bind rek xam na ci ku yonent bi ba ci nit sax ruuxam xam na kii yonant waaye dafa di rulmaani yetu yaramam moo ko yéer yal na yàlla dindil kii raay waaw bi yonant bi juddoo jinne yi dañ leen dégg ci xajul ñi ngay wëy eh, xaju xajun xam nga sayyidatna Xadija amoon na fa kër wala ñu ne sax dañu dégg kuy wax xamuñ sax ndax jinne la wala malaaka mu ngi naan fa uqsimu ma unthan min annaasi anjabat wala waladat unthan min annaasi waxida kama waladat zuhriyatu zaatu mafxarin mujannabatu lumi lqabaili majida ki ndey aminatu jur jigéen mosu koo jur te du ko mos a jurati waaw moom la ko moom la ko eh, góor ga waxoon Seyduna Xasaan xam nga Seyduna Xasaan dund na juróom benn fukki at balaa muy dugg ci lislaam dundaat juróom benn fukki at gannaaw bu mu duggee ci lislaam te kenn dàqu ko woon wëy kenn gënu ko woon xam li muy wax waaye ba mu gisee yonent bi mu xam ne lim ne woon du noonu waaw mu muy muy muy muy observé yonent woy ko xasida bu nga xam ne ci ndey Aïchatu la jëmm wooy waaw ndax mooy dund ak moom bés bi muy bi muy xam kana yonant bi moom ndey Aïcha poussam bi muy ñëwee moo ko réer ci néeg bi fekk yonant bi di jege di di jóge jàkka ja làmp amul ci néeg bi pour mu gis ko timis jot na naka lay nekk di xool rekk gis benn leer bu jayeex ci biir néeg bi rekk mu ne mu mu gis pousa baag li ci néeg bi yëpp mu foog na làmp bu ñu taal la mu siggi rek ndeke yonent bi la mu jël baytu xasaan ba ne ko ajmalu minka lam tara qattu ayni ku la gën a rafet sama bët mosu koo gis wa akmalu minka lam tarithu nisaa ku la gën a mat jigéen mosu ko musu ko Elijah Elijah macha allah ma ngi benn mbokk ndeysaan mooy nelaw ci jàkk ji moom ngeen di dégg ah xam naa reeram dafa diis bu doon waa Sénégal ma ne séeréer la ndeysaan wa lam tara qattu ayni wa akmalu minka lam talithu nisaau xuliqta mubarraan min kulli aybin fa ka annaka qad xuliqta kama tashaa mu ne ko yow daal yàlla dafa mel ni bi mu lay bind def la def la invité ne la wax ma noo bëggee ma bindeel nga wax ko ko mu topp la ca waaw loolu law jinne yi doon woy wal jinnu tahtifu yonent bi bi mu juddoo ba biñ ko yónni mubashiraat yi mi ngi fi fu nekk ah, ni ko eh, imam Bajuri yi waxee ci sharha burdam waaw ndeysaan waaw ah. imam Bajuri yi moo indi bayti yi ci sharha burdam eh, góor ga naka la tuddati Azarqaani mu ngi wane ne bokk na ci ajaib rasulillahi mooy bi mu juddoo ba biñ koy yónni mubashiraat yi ak uh, yi wane ni mu ngi fi foo foo di ko gis waaw ah. ah. waaw wal jinnu taxtaf wal anwaaru saatiat wal xaqu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kiy dëgg yadharu mi ngi feeñ min maanan ci biir wa min kalimi ak ci biti min maana ci maana wa ak ci waa lu tax nag waa Faris ak yéeféer yi ci des yëguñu ko mu ne parce que li ñuy gisee ak li ñuy déggee moom lañu jël ci ñoom amu wa sammu fa ilaanu lbachairi lam yusma wa bariqatu l inzaari lam tusham amu gumba nañu sëriñ Duudu ñu lay ziar macha allah kooku suñu doomu bàyyi la sëriñ Duudu Saaxo ca eh, New Jersey macha allah amu wa sammu fa ilaanu lbasa bashairi lam yusma wa bariqatu l inzaari lam tushami amu dañoo gumba maanaam bu ñu amee bëti waahirit mënuñu xool dëgg ba gis ko ndax bëti baatin ya gumba nañu wasamu dañoo tëx bu fekkee am nañu noppi waahirit amuñu noppi baatin yu mën a dégg-dégg yu mën a gis kémtaan yi moo tax ba fa ilaanul bashaa'iri xamleeg mbégte ya te tey ci lañ jilee ilaanaat yi nga di di tudd nan lañ koy tuddee ci tubaab publicité wax naa leen luxal arab yi ni mu ni mu toll wool wutal xew-xew bu bees baat bu bees amal na ko ko fekk ñëwagul la fa ilaanul bashaa'iri xamleeg mbégré yi mbégéle mbégéle yi lam yusma déggeefu ko maanaam ñi ci teg seen bët sax taxul ba léegi eh, ñu ñu retenir li ñu war a retenir ndax ñu waaroo ci parce que ki sa pale daanu euh, sa ndox ngiis sa safara fay jinne yi di wax ngay dégg màkk yépp di riir jaf na bi nga daan euh, dëppal xale yi ndap loolu nga dëppal ko ko leket ga toj kaaba gi di fecc ba sujjóot ñu ne moom sax bi mu juddoo ñu ne wax na ne jalaala rabbi rafia ñu ne ma ngay xool ca kaw bi mu juddoo dara ci tilim toppul ko ni mu mel rek la mel sallallahu alayhi wa bi nga xam dañ koy daggal liir sax indiwaale ko topp ko du néegu góor sax def ko judduwaale ñu ne dégg nga ñu ne ma nga judduwaale kenn tus nga lu ko bët yi dafa ñëw fekk ma ko xoolan waaw nag lu xale di am ci voie normale yàlla may ko ko ci voie bu extraordinaire li ñuy màgg weer mu màgg ko bés li ñuy màgg at mu màgg ko weer nekk ci banu saad ci xalimatu saadiya dégg nga jibril ànd ak mikaayil ñu ne ak keneen ñëw tër ko opeere ko dindi xol bi raxas ko ba mu set ñu def ca ngëm ak xikmatu ba mu mët fekk daf koy indiwaale waaye loolu tabaarakallah kenn ñëw ma ko firi sax yooyu yëpp ñu ngi koy gis di dégg nga mu wanentu ñuy xool naka lañ koy fajee ba labbe bu yàlla may gis-gis ne jël leen tuflitam ngeen laal ko ci bëtam ñu laal ko ca mu wér ñuy tukkeek moom labbe bu yàlla may gis-gis ne leen bu leen ànd ak moom tukki na dellu ki warul génn terewul ba mu ñëwee fa ilaanul bashairi lam yusma wa baariqatul inzaari melxati xuppe yi lam tushami séenéefu ko yi nga xam ne wax nañ ko ci yu neex yépp ci juddoom gi gisuñu ko waaye yi tamit waare gi nga xam ne am na ci ñàkk gi ñu amoon ñàkk lañu amoon ak lañu fonkoon waare googu gisuñu ko dégguñu ko fa ilaanul bashairi lam yusma am na ñuy def lam tusma muraatan lil bashairi waaye jaru ko lam yusma baax na ndax ilaanul bashairi wa baariqatul inzaari lam tushami séenee fukk parce que melax eh, boo ko xoolul mën naa am doo ko séen mën naa am doo ko séen bu dee sax frappé na ba nga yëg ni am na lu frappé waaye boo ko xoolul doo ko séen min bacdi ma axbara al aqwaama kaahinuhum bi anna diinahum al lam yaqume gumba nañu gisuñu tëx nañu dégguñu min bacdi ma gannaaw boo xamee ne axbara xabaare na laqwaama nit ña faaris ñu dul faaris kaahinuhum seen buxaaba ba ne bi anna diinahum kaahin mooy kiy gis lii xew xam nga lii xew suba eh, di nga gis ñu seetal la ne la nangam mooy xew suba xam nga lu tax ñuy tudd ne dañuy kàcc parce que lii xew suba suñ la ko wanee it waruloo ko wax xam nga lu tax même su fekkee voie yi nga jël ba xam lii xew suba yu wér la waruloo ko wax parce que à la minute même yàlla mu ngi yore dogal yi ci diggante baaraamam waxuñu baaraami baaraam waaye baaraami kàttanam waaw à la minute même bi ngay wax li war a xew suba bi ngay wax Umar mii gannaaw suba nangam ngay am Suzanne mi gannaaw suba dara mooy xew Duudu mii gannaaw suba lan bi nga koy wax moment boobu yàlla mën na cee soppi li war a xew te yow bi nga xoolee léegi li nga gis gis nga waaye bi nga koy wax fekk mën naa am soppeeku balaa demee mën na ko soppi balaa moment bi mu war a xewee mën na ko soppi moo tax loo ciy wax moo tax loo ciy wax dañ la ko seetloo wut sax waaw bu la ko yàlla wanee sax wax loowuñ la ko waaw moo tax seet moom kàcce rek waaw lu leen nit mënta wax seet kàcce rek waaye am na ñu nga xam ne bu ñu xëyee demuñ ca seetkat ba dootuñu nekk léegi nag métier la métier métier te nag sëriñ beeg boxaabakat beeg petawkat beeg xam nañ nit ñi dañuy fekk nga am problème bu ndaw ñu utiliser problème ba aggraver ko pour mën a lekk ci yow xaalis waaw ah, pour mën a lekk ci yow xaalis ah, am na ku ne ma dafa am benn waay ne ko jox ma 3000 dollars xaw ma ak nang ñaata nag parce que yow dañuy nangam nangam te dafa yëg ne dafa feebar <laughs> kooku yi tiit dégg nga nag bi der bi dama la ci defal nangam nangam xam nga loolu mooy man ngay jox nag bi. su ko defee mu dem defaree ko eh, eh, dégg nga eh, biftek rek wala cere taatu nag ak lekk kook soxnaam ah, yu kenn xamul moo tax boo fi bàyyee yàlla rek àdduna bu tukki lay doon ah, waaye yooyu moo fi nekkoon yooyu moo fi nekkoon moo fi nekkoon te dafa am nag yu nga xam ne dafa dëppoo dafa dëppoo li jàng ci téere yi moo tax te yiñ jàng ci téere yi kooku eh, du du aju ci rann kooku ci yaqiniyaati la bokk waaw du jàdd te su neexoon yàlla mu dindi ko waaye du ko dindi parce que eh, ma nga ca dogal ba ba pare waaw dafa am eh, alkitab almamxu waaye tamit dafa am kitab boo xam ne la fa nekk kenn du ca am accès pour pour efface ko yamxu llahu ma yashaau wa yuthabbit wa indahu umul kitab kenn amu ci accès min bacdi ma axbara al kaahinuhum bi anna diinahum bi leen seen buxaaba ba xamalee d'après yi ñu gis ne bi na diinahum seen diine joojee al muwajja gay aji jeng lam yàqu mi dootu taxaw seen diine ja daanu na dootu taxaw ndax xërëm yi kat guddi googu yëpp a njattu boo yëgatim mu daanuwaat buur yi seen lal yi yëpp daanu boo ta yëgati mu daanuwaat ba dangay ngay mujj ne naa jàpp ci yàlla rek fanaan ci suuf benn buur fanaanul ci kaw lal guddi gi yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ah, eh, xam nga xërëm yi bu ñu yemoon ci daanu waaye dañu dégg ci ci ci biir xërëm yi lu ciy wëy lu ciy wëy lu ciy wëy di wane seen ak sëriñ Baabu Ndooy ñu ngi lay nuyu macha allah wa baada ma aayanu fi l ufqi min shuhubin munqadatin wifqa ma fi l ardi min sanami wa gumba nañu tëx nañu baada ma aayanu gannaaw buñ jàkkaarlooyee fi l ufqi ci goxi asamaan yi min shuhubin juum yoo xam ne munqadatin way daanu lañu ci kaw seytaane ya daan sàcc dégg di ko jox buxaaba yi wifqa ma ardi mu dëppook li ci suuf ci daanu min sanamin ci xëram malgré gis nañ ne bi yonent bi sallallahu alayhi wa juddoo seytaane yi nga xam ne ñoo daan sàcc yi dégg te bi Seyduna Isa juddoo dañ leen a bloqué ba mënatuñu baase ñetteelu asamaan bi yonent bi juddoo nag ñu bloqué même ñetti asamaan yi ci desoon waaye terewul nag ñu daan na dem ci kaw di dégg eh, sariful aqlaam yi xalima yi malaaka yi di du bindee di sàcc lëf waaye bi yonent bi eh, biñ ko yónnee nag lépp jeex ñu ne walla sax biñ ko bi mu juddoo la yooyu yépp jeex ndax dañ daan déglu lañu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ daan déglu waaye nag léegi fa man yastami ilaana yajid lahu shihaban rasada yajid lahu shihaban rasada léegi ku naawati ne yaa ngi déglu rek ay juumi safara lañ lay dàqe mu ni bi yonent bi juddoo foo xool rek gis juumi mu ne lu tax nag gannaaw ga waaroo wuñ ci ne ki juddu tey jii ba waral lii mbiram lu rëy la mu ne kumba xol ak tëxu nopp xol waaw soxna Aja eh, Rugi soppe yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi lay ziar bu baax a baax ca Georgia macha allah. ndax loolu rek lañ gis mu ne déedéet pourtant loolu am na sax lu ko euh, lu ko lu ko seexal lu lu nekk seexam ci kaw suuf mooy daanu xërëmi wifqa ma fi l ard min sadami xatta gada an tariqi l waxyi munhazimun min alchayatini yaqfu ithra munhazimi xataa xadaa ba mujj munhazimun aji notu min alchayatini ci cheytaane yaqfu di topp ak a xencu ithra munhazimi njeexitu aji notu jeneen an tariqil waxyi wala si yoonu wax yu yoonu wax yu gañ daan dem di sàcc ay information ku demati ne yaa ngaa yéeg rek jum ak safara sa ca biir jum takk ci sakk mu ne foo gis seytaane ma ngaa daw waaye boo xoolee ci kanam it ma nga topp beneen seytaane buy daw ñoom ñépp may jàmm yoonu wax yooyu xatta gada xatta gada an tariqi lwaxyi munhazimun parce que comme yonentu baa ngi ñëw sallallahu il faut que ñu bloquer yeneen source d'information yëpp bu ko defee ya ñu yore woon parce que jinne dafaa gudd fan yooyu ba léegi ñu ciy jox seen fenkat yi ñu ciy jox seen fenkat yi walla nga utiliser euh, méthode boo xam ne euh, méthode valaki la waaw valaki la am na benn euh, valaki bu ñuy wax Abdul Fatah Tooxi waaw boo xam ne kenn xamul may gi ko yàlla may ci wàllu googu ñun bi ñuy xaleel du dañ daan fooye azayir yi jël hënd bu Abdul Fatah Tuuxi booba ñu ngi xaleel nekk ci daara ji boo bëggee tukkee boo feebareek nga ñëw rek jël ko dem calculer fii nangam nangam mu ne la demal ci page sangam nangam waaye da ngay mujj xam ne yooyu yëpp yëfu dof la rek parce que lii war a xew suba boo ko xamee lu mu laa jëriñ ah lu mu lay jëriñ ah lu mu lay jëriñ ah, that's our sister Sadia Abdourahim Abdourahim family is around the corner today macha allah ñoom seen seen seen wayjur ku baax la muy alxa Xasan Abdurahim bi ñu tàmbalee jàkk ji ba léegi euh, loxoom moo frère am Saïd ba ci moquette yi ngeen di ci jàkka ji Saïd Abdurahim moo ko moo ko moo ko jënd waaw moo ko jënd moo ko jënd ci lu romb presque dix mille dollars moo ko commandé ca Turquie indi ko waaw ñu ñu baax lañ waaw moo tax ñun dañuy toog rek naan tuubeen yi tuubeen yi te pourtant euh, euh, Abu Bakr mi gën ci li yàlla bind gannaaw yonent bi tuubeen la waaw tuubeen la ñun nag fu ñu gisee américain noir rek ñu gis nga ñoom seen diine nangam nangam fekk demeewul noonu waaw ndax xale yi loo jàkka ji xew la ñu ngi fi waaw te waxuma la seen papa waaye seen maam sax jullit la woon seen maam sax jullit la woon waaw mu ne xataa gada ba mujj an tariqi an tariqil wax yi di écarté wu waliis yoonu wax yu gi kan munhazimun min ash-shayatin aji notu ku ñu gañe ku am defet ci cheytaane yi yàq fu di xencu isra munhazim maanaam cheytaane yépp rek mu ne booy xool nañ doon dawee mi ngi la bëgg a indil Euh, loo xam ne it xew na ci suuf lu dëpp lu munaasaba ak loolu euh, di wane ki juddu kanam sallallahu alayhi wa sallam Umar Thié macha allah ñu koy ziar barakallahu lakum mu ne ka annahum daanaka ñoom booy xool nañuy dawee haraban ci daw abtaalu abrahati jàmbaari abraha yi lañ abraha miñ leen wax sànq ne dafa tabaxoon kanisa muy église ca Yaman fekk waa Xabasha la fa doon représenté pour nit ñi bàyyi kaaba gi ñëw fa benn waaye ci kinaanatu xam naa ne euh, moom xëyra jàpp ko xam nga xëyra bokkul ak xasad wolof nag fiir rek la koy tuddee fiir gi nga fiir ci sa jabar kooku la ñu tuddee xëyra te kooku farata la góor boo gis fiirul rek xamal ni du nit maa la ko wax civilisation occidentale fiirul waaw fiirul parce que ki takk jabar ku nekk ci xaritam yu góor yi mu yónnee ko photo bi walla mu indi ko ñuy kottante kooku ci la musiba yem ba ci sa mbokk sax ndax yonent bi sallallahu alayhi biñ ko laajee eh, alxamu mu ne mooy dee alxamu mu ne almawt parce que sa jabar yàlla la ci yàlla musal su jotee keneen ci àll ba kooku musiba la sa jëkkër yàlla la ci yàlla musal bu jotee keneen ci àll ba kooku musiba la waaye imagineel jabar ju njaaloo ak sa frère nga xam ko imagineel jëkkër ju njaaloo ak sa sœur xam nga ca la mbokk ngay ko waaye ca la ñàkk kersa am tamit moo tax yonent bi ne alxamu c'est la mort nga gis nag ku jënd kër ba fa jabaram ak ak frère moom nekk sax bitim réew far pour ñoom dara xewut loolu musiba la wala eh, eh, jëkkëram ak ak ak ak ak sëru jabaram ngeen baal ma ci kàddu ay listam nanguwul loolu mukk yonent bi dafa ne na ngeen soril noyyi yi mag ñi boo gan ci seen kër yi doo ci soxna yi léegi nag kenn xamul li xew lan la ba ci eh, gàmmu yi gàmmu yi sax gàmmu yi nu ñu neex lañ koy defee ba pare di ko tuddee mag ñi nag te te loolu du dëgg ndax Cheikh El Hadji daf daan wax ne ala azimu bu na màggal guddi gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne xisbatan in lam yakun naxwal xaraami udulu waaw ne yàlla tax te bu ca xaraam am cër Cheikh Cheikh Ibrahima Ñas mu ne fépp foo xam ne ñu ngi fay tuddee ne sama xadara la sama muqaddama fa nekk ak samay taalibe te ñu fay bëtt sharia te ñu fay bëtt sharia maa ngi seedeel yàlla di seedeel yonant di seedeel Cheikh na Tidiane ni ne dëñ naa ci ñoom te duma ma ci ñoom mukk lu dul ne yàlla ko yonant dañoo denc moom ba pare ak Cheikh na Tidiane yi te tey ngay gis ñuy woote Cheikh ma Niass di tëgg di fecc di jaxasoo di nang ngay gis kuy woote Cheikh Ahmed Bamba di tëgg di fecc gis kuy wooteel eh, eh, Cheikh eh, Al Hadji di tëgg di fecc di nang wala sa programme jigéen ñi góor ñi kenn du xam lan xew dafay mel ni Sorano nga nekk waaw wala Grand Théâtre léegi sax Grand Théâtre la ñu yóbbu xew-xewu diine yi waaw doo xam ban comédie la ñoo joué léegi yan ñu yàlla boole musal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa na ñu yàlla boole musal Cheikh na Tidiane demoon na ba wéykat bu dee góor sax am na nu baat bay mel wala moom am na nu muy mel lu nangu mu woy ci kanam jigéen ñi waaw moom bu jigéen ñaa di jël tariixa sax ci ginnaawam lay toog hmm? xaj war na mën a toog sa kanam waaye dafa am lu muy jàngale waaw dafa am lu muy jàngale ñun romb nañu foofu tabaarakallah ka annahum هربا أبطال أفرهته أو عسكر بالحصى من راحتي من راحتيه رمي نبذا به بعد تصبيح ببطنهما نبذ المصبح من أحشاء ملتقم أكمن ويكار رضي الله تعالى عنه nee na boo xoolee seytaane yi ni ñoo dawee ci guddi juddu yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi mel ni rek yàlla ba muy alak ba muy alak abraha waaw te kenn ci kinaana xayra jàpp ko waaw kay mu dem def fay kabine ca kenn sa ba mu fa tabaxoon moom abraha abraha nag nga dafaa teg si kaaba gi ba mu ñëwee waa Makka fii tiital leen lool mu mu ne ana kilifa màkk ci fekk booba maamu yonent bu ñëw Abdul Muttalib mooy kilifa bi bi mu ñëwee seet si ko eh, ne ko man de dama ñëwoon dama dégg ne da jël samay gëléem mu ne ko yow màkk ak li ko wër seen teraanga yépp néeg bi la nga dégg ne damaa toj si néeg bi waxuloo ma naa bàyyi néeg bi nga naan ma samay gëléem ne ko néeg bi <laughs> dafa am borom man giléem yi laa moom borom néeg bi dina dina sàmm néegam ma jox leen ko giléem eh, Seydina Abdul Muttalib invité waa Makka ñu ànd dem ca xeewi ñaan waaye ba mu naree dal ci néeg bi la mu ko waxoon dëgg la borom néeg ba aar na néeg bi ca na ngeen ko jàngee ca sóoratul fii mu ne ni ñu notee jàmbaari Abraha yi niroo na lool ak ni ñu notee cheytaane yi daan sàcc ji dégg aw askarun wala boo leen xoolee sax dañu mel ni mbooloo moo xam ne mbooloom xare la rumi boo xam ne sànneef na ko min raxatayhi tukkee ci ñaari tënk yonentu sallallahu alayhi wa sallam yu tedd ya bil xasa ci jàmburaay wala sax ni ñu notee mbooloo ba nga doon xare ak bi sallallahu alayhi wa sallam Badr ak ca Xunayn te yonent bi sallallahu alayhi wa jël ay jàmburaay rek sànni leen ko ku nekk ci ñoom suuf sa dugg ci say bët ngay toxoñu ba daw ñu not leen mu ne nañ notee mbooloo mooma niroo yi tamit ni mbooloom seytaane muy notoo ca guddi googa yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa ci bat fukki fan ak juróom benn fukki fan ak juróom ñaar ci weeru ko ña nga woor ña nga sonn bariwuñ doole tax na tiimaa jaw masha allahu Quraysh am doole ju nekk indi junni ñoom amuñu fas amuñu jaasi amuñu dàll yu sol amuñu dara ñu benn ñaar ak ñett ñoo ci am fas ak jaasi war a dajeek mbooloom Quraysh yonent bi di ñaan ñaan ko yàlla rabbi in tuhlak hadihi l isabatu falan tubada fi ardi abadan sama borom boo seetaanee bañ not mbooloo si kenn dootu la jaamu ci kaw suuf jibril ne ko jëlal ab tibb rek ci suuf nga sànni ko ci seeni kanam mu def ko amul kenn ci mushrikoone yi lu dul lëf ci suuf sa dugg na ci sa bët ak sa paxi bakkan ak sa gémmiñ ñoom ñépp ñu daw wa maa ramayta id ramayt walakin allah rama saxal na daq naka noonu ca xunayn mooy ba ñu jógee fata makka yonentu sallallahu alayhi wa jël lëf ci ay jàmboraay sallallahu alayhi wa daal di ko sànni rek naan ci ci kanamu yéeféer yi naan in hazamu wa rabbi muhammadin waaw dàq nañ leen not nañ leen gañe nañ leen waat naa ko ci yàllay muhammad ci sallallahu alayhi wa sallam waaw keroog ci lay wax ana nabiyu la kadib ana ibnu abdil muttalib waaw ndax dañ leen bettee ay fat jàmbaar yépp daw waaw abou soufiane son cousin moo yére laxabu gëlëm mu yonantu bi wala buum gi waaye yonantu sallallahu alayhi wasallam mi ngi jëñ gëlëm gi moom kot jëm ci noon yi ñëpp daw ne dégg nga mu naan ana nabiyu la kadib ana ibnu abdul muttalib mu ne ana abbas mu ñëw mu ne ko wooteel abbas ku neex baat la woon te te te te te te te te foorle ko waaw waaw moo tax mu tagg yonent bi waaw ma taggal yonent bi ne ko tagg ma laa yufat fit abbas tagg ko min qabliha tibta fi dilali wa fi mustawdain xaytu yuxsafu lwaraqu humma habatta albilada la basharun anta wala mudgatun wala alaqu bal nutfatan tarkabu lsafina wa qad aljama nasran wa ahlahu algaraqu ولدت نار الخليل مكتتما تجول فيها ولست تحترق تنقل من صالب إلى رحم إذا بوى عالم بدا طبق حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحت حنتك وأنت لما ولدت أشرقت الأرض gis nga Abbas sax gàmmul na yonent bi yow de bi nga juddoo أشرقت الأرض وأشرقت الأرض بنور ربها أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق sa leer gi moo leeral keroog gox yëpp sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam bés boobu yonent bi bi mu leen sànnee naka la ko sànnee rek ñoom ñëpp suuf sa euh, fàtt leen ñu wëlbati ko mu fàttali nag ci sànni gi kéemaan gu am ci jàmburaay yu mu yëgati teg ci loxoom muy sàbbal moo tax mu ne nabdan bi sànni leen ak sànni baada tasbiixin gannaaw sàbbal bi batnihima ci biir ñaari teen xam mu sànni leen nëb nabdal musabbixi comme sànnik jën wa sànni ga nga xam ne moom la sànni sayduna yunus ma ca doon sàbbal na laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min awaalim waaw mu sànni leen nabdal musabbixi comme sànni gañ sànnoon aji aji sàbbal ja ñu sànni ko mu génn min ahsha i multaqimi ci bal jàtt gën waa moom aji wan noonu la ko aji lumpoon la ko ci ndigalu yàlla faltaqamahu lxuutu wa huwa mulim falawla annahu kaana min almusabixin la labitha fi batnihi ila yawmi yubaathuun moom lay fàttaliwaale fii yonentu sallallahu alayhi yore na eh, xeer xeer yi di sàbbal ñu ne mu jox ko Aboubacar mu sàbbal Anas ñu ne wax na ne mu jox ñu ko sàbbalut xamul lu muy firi la laa annahu waaye eh, eh, li mu junji tamit ci sàbbal eh, ci sàbbalu Seydina Yunus gis nga Seydina Busiri dafa dafa neex te dafa mën ni muy woyee parce que fi mu fi mu toll nii rek mi ngi war a foncé ji ci mujisaatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yi ñu war a ñëw suba insha allahu tabaraka wa taala ci jaaddi daawati la shijaaru waaye fu muy jeexalee rek dafay munaasaba ak fa muy tàmbalee beneen faslu ba Seydina Yunus eh, ñaan gi mu ñaan eh, ba yàlla génnee ko moo lay wan ne léeg-léeg yàlla du may ma la ñoo wax ak moom da koy bàkk bàkk ko moo gën a gaaw nga ne ko may ma te dañ ko war di ñaan may ma waaye bàkk ko ci may ma la bokk ndax ba mu ne laa ilaha illa anta indi inni kuntu mina al-zalimin dafa wax rek lim def wax ki yàlla doon yàlla ne fa najaynaahu min al-gham ma génne ko ca góota gam newe woon wa kadalika ni ma génnee woon yunusa nun jii lay musalee al muminin képp kuy julleeti jullitati nga tollu diggante boo ne laa ilaha illa anta inni kuntu min alzalimin yàlla génneel la ci képp ku ñuy fexeelati nga yëg ko wala yëgoo ko nga wax li mbokku euh, euh, firawna ma waxoon te booba moo gëm Moussa ci waa kër firawna mi nga xam ne ñépp ko ragal mu moom àdduna bay wooteeg yàlla na ana rabbukumul ala alaysa li mulku misra kii di ko nëbb ba xam ne nëbb ga xam nañ ko muuminu min ali firawna yaktumu imaana waaw wa qaala rajulu muuminu min ali firawna ba mu demee ba yëg ni ah sëriñ Dramé macha allah ñu ngi lay ziyaaru barakallahu fikum kadalik wa fi jamiikum ya rabbi wa fi jamii ummati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sharqan wa garban wa ba mu yëgee pexe ma est ce que dafa daw ne dawut فأفوض أمري إلى الله inna allaha basirun bil ibad moo taxit fa waqaahu la fa ci saasi rek waqaahu la gis nga ci yunus yi fa ci saasi rek na jey naahu min alxam fa ci saasi rek waqaahu laahu sayiaati maa makar maa makaru moo tax fu ñu lay fexeelati rek jàppool baat ba wa ufawidu amri ila du tere nag nga def sabab waaye bul sukkandiku ci sabab ga baat bi li muy firi sukkandiku ci mooy maa ngi jooyal sama mbir yëpp ci yàlla subhaanahu wa lépp bàyyi naa ko yàlla waaw moo tax booy wuti dépense sax bul foog ni liggéey bi ngay liggéey moo la koy jox déedéet sabab la waaye yàlla cay jaaree bul foog ni garab bi ngay naan moo laa wéral waaye sabab la yàlla cay jaare bés boo jàppee ne sa liggéey moo lay may alal sa diplôme yu bari moo la jox liggéey bu baax sa garab bi nga naan moo la wéral génn nga ci diine parce que yooyu mënuñu bu safara mënoon a lakk kon dina lakk Seydina Ibrahim bu ndox mënoon a lekk dina labal Muusa dina labal Yunusa bu jën mënoon a wann dina wann Yunusa maanaam mënoon a reeree mënoon reer dina reeree Yunusa yàllaay eh, jaarale reer ci jën moo koy jaarale ci ñun waaye ñun mënuñu sax yéey yàllaa jaarale yéey ci ñun waaw bu yàlla dindiwoon sirru bi ci yéey ci suñu bëñ yi ak ci suñu gémmiñ yi ak bi ci dànk ci loxo séeréer yi kenn dootu ko mën defati waaw bu paaka mënoon rendi konoon Seydina Ismaïl rendi nañ bu pexee mënoon a rayaate kon Seydina Isa rey nañ ko wala Seydina Rasulullahi rey nañ ko moo tax wa ufawwidu amri ilallah su sa noon yëpp tasee pour alak la bul fàtte xasbunallahu wa ni'mal wakil mooy gàllaaju yonent mooy gàllaaju Ibrahim bañ ko sànnee ca safara bañ ko waxee rek fanqalaboo ca saasa rek fanqalaboo faaga ma ngay wane ne ca saasa rek inqalaboo bi niamatin min allahi wa fadlin lam yamsasuhum su wattabaau ridwan allah wallahu du fadlin azim innama galikum cheytaanu yuxawifu awliyaahu fala taxaafuhum wa xaafuni soxna Fatima Ndiaye yow yaa mujjee ñëw tabarakallahu ñu ngi lay eh, ziyaare di ziyaare ñi ci eh, Facebook bi du ñu suivre yëpp macha allah ñu ñaan yàlla euh, ñu euh, yeggali burdatul madih bi ak jàmm te leer gi ci nekk yëpp yàlla sotti ko ci euh, ñun sotti ko ci àdduna yëpp ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam àdduna lëndëm na jullit yi problème yi bari na waaye yàlla am na solution yàlla nañu yàlla jox solution tabaarakallah soxna anta baabu bu sëriñ babacar radiallahu tabaraka wa taala anhu yow it ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay ziar soxna Anta bu sëriñ Babacar macha allah baax sëriñ macha allah kon nag leeru mag ñooñ yëpp yal na ko yàlla eh, sotti ci ñun Seydina Cheikh ku fonkoon burdatul madix la Seydina Cheikh ku fonkoon hamziyatu limaami bu sëri la waaw burdatul madix ku ko fonkoon la hamziyatu limaami bu sëri waxuma la ku ko fonkoon waaye sarxaan na ko far moo tax mag ñi ñëpp daan ko daan ko daan ko gàmmoo moo tax mag ñi ñëpp daan ko jàng kon nag ni ñuy jàngee burda nañ koy jàngee hamziya ni ñuy waaye leer gi ci burda ak gi ci hamziya ak gi ci mbindu mag ñi yal nañu ko yàlla euh, boole jox ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla raxas xol yi ba mu set wëcc yàlla rekk nekk ci raxas yaram yi ba jàngoro benn benn benn benn du ci desati raxas ñàkk yi ñu ñëpp ñu woomal ci waahir woomal ci baatin waaye woomalee yàlla subhanahu wa taala yàlla na poos yi fees dell alal waaye tabaarakallahu xol yi yal na ci yàlla rek nekk wa ma dalika ala allahi bi azizin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tabaarakallahu di ngeen mën a seetaanaat yëf yi ci eh, youtube bu ngeen demee ci ICFA radio and television suñu chaîne ci youtube wala icfa online point com wala suñu mbokk yu baax yi seneweb com ak tabaarakallaahu yeneen eh, siitu jokkalante yi yal nañu yàlla defal dégg defal ñu topp jox ñu barke gàmm jox ñu barke borom gàmmu te takkee ñoom yonent bi sallallahu alayhi wa fii ba abadan takkee ñoom yonent bi sallallahu alayhi fii ba abadan takkee ñoom yonent bi sallallahu alayhi wa fii ba abadan ku ñuy xaar yàlla na xaddi ku ñuy fexeel yàlla ba mu antu ku ñu bëggal lu baax yàlla nañ ko bokk ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu